Tay moy euh, finalu coupe du maire euh, de la commune de Thiaré comme euh, n'ingo nga ko waxee finalo mooy finalu édition 2018 coupe du maire de la commune de Thiaré ñu koy organiser tey entre d'araji ji ak ASP ASC Espérance muy lo xamné chaque année ñu organiser ko Tay nak ren nak dafa xawa ala domaine. ci kaw ki nga xamné mom la ko jaglelee tuddee ko muy Modou Touré muy lu nga xamné jeune jeune la boo xam ne jeune bu dynamique la bu bëgg commune bi la moo tax ma tànn ko tuddee ko ren coupe bi yéen coupe bi nag chaque année ñu organise ko ci commune Thiaré depuis nga xam ne ñu ngi nekk ci euh, communauté rurale ba tey ñu yegg si commune chaque année ñu organise lu mel waaye li ñu am ren vraiment gën nañu ko am moo tax euh, ren kontaan nañ trop ci final bi. li ñu xalaat mooy que ñu ngi bind état bi fu ñu nekk. ñu ngi waxtaan ak état parce que am na loo xam ne su ñu ko bëggee def ñun waa commune bi aussi danañu xaw a të waaye lii nga xam ne moo fi jot a nekk euh, bi may nekk ci communauté rurale laa ko def donc léegi ñëw nañ ci commune ñu ngi ñaan appel état bi mu jàppale ñu ñu am stade municipal parce que gis ngeen mbooloo mi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci terrain bi xajuñu fi kon loolu vraiment lu ñuy ñaan appel la parce que tey dafa am lu nga xam ne dëkk yi nga xam ne ñoo nekkoon ci ñu leen di tuddee

xam ngeen ne stade bi dafa xaw a sori dëkk bi mais maa ngi ci pour ma indi fii incha allah électricité ci wàllu euh, commune bi aussi maa ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy autorité yu mag ñu jàppale ñu ci euh, ba nga xam ne euh, électricité dana bëri ci biir commune yu Thiaré bon subvention bi comme na mu daan toll rek la toll xaj na ñun bu nga xamee ne subvention am na dafa am leneen lu nga xam ne dañ koy jëlaat dolli ko ci subvention bi pour jàppale ko jeunesse bi donc ren

yaakar gi mu am ci man di ñaan yalla yalla na yalla motal ko développement li ma si gis moy ci local da fay commencé fi nga xamne fa nga dëkk ndax du fekkante ne ñun yalla mo def suñu jamono am fenn amuloon liggéey fu capital donc ñun ñëpp dañuy jang di continuer man bu ma jàngee ba am entrant en sixième la fi joggé dem kaw lox jangi fa bobu ndofan sax amagul lycée kaw lox mo amone lycée nga dem jang légui lycée amna fi da nga dem collège ba collège di manam lycée fu mu nek moy liggéey mun na fa ñëw

macha allah bu may nek ba legui limay def ci dekk bi bari na si jappale xalé yi si jappale mag ni si jappale jigen ni surtout jigen ni jàppale leen ñu mun am luñu ñu liggéey surtout si maraîchage euh, Amadou kan président onkaf bi waral li yëpp tay yalla moy def mu dajé sama xarit la bu ko waxee dañ ma parrainé suma final zonal bi mu ne ma damay dem waye khat khatu aduna man dama nekkon bitim rew teel a ñibbi su suba 9h la soga yex ci Sénégal tay mu ñew indil ma bagage ne day ñëw ko do ñew bàyyil ma dem man kese may dem ma dem yóbbu ko ndax damaa xat damay demaat ñëwaat moo ma jox mayo yi moo ma jox coupe bi man mayo dama si yokk rek waaye jox na ma ay mayo jox ma coupe man maa si yokk li si ma si yokk loolu lu ndaw loolu ma xeeb trop ndax xat-xatu àdduna sax moo tax ma demee noonu su ma fekkoon ma toog 15 jours Sénégal lijjanti ko dina ëpp